dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri waykat bi di Habiba di doom ci Diop Iseg ci jamono joo xamante ni baayam Mamadou Diop ñu gën ko xam ci Diop Iseg ma nga ca prison bu Rebeuss ngir mbirim viol sur mineur ak mbirum détournement de mineur Habiba mu ngi occupé le devant de la seen médiatique ci mbirum xeex boobee nga xamante ni dox na ci diggante Habiba ak jarbatu wujju yaayam moo waral ba ñu convoqué woon ko ca police bu jëppal la doon xeexal plainte naka noonu Habiba moom it daat koy porter plainte ci ab xuloo bu doxoon ci ñaari soxna yi Mamadou di bàyyi ci waykat bi di Habiba ndax kat ki nga xamante ni mooy aawo Mamadou Diop di di wuyoo ci turu Mbissane ak ñaareeram bi wuyoo ci turu Aïssatou Seydi teñ dëkk ñoom ñaar ñëpp ca Sacré-Cœur ci genn kër jamono ji ñoom it déggootuñ ci xuloo rek lañuy ñuy dëkk sinuk ñàkk déggoo ñoom ñaari soxna yi Diop Iseg gi nag moo wàcc ba ci xale yi maanaam Habiba ak jarba ba tuuju yaayam bi tax ñu daal di xeex xeex bu metti bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ñu jot nag mbir mi dara waralu ko lu dul mbirum mërs mi nga xamante ni tax na ba ñu daal di tëj Diop Iseg fa fee ca prison bu Rebeuss maanaam grossesse bi nga xamante ni doxoon na ci diggante Diop Iseg ak Dieyna Baldé bu Sen Petit Gallé garuwaale gi nga xamante ni dañ koy def saa su ne jëmale ko ci papam moo metti lool Abiba ba mu summeekoo xeex ak jarbaatu ju yaayam boobee ba ñoom ñaar ñëpp ku nekk daal ci am gaañi gaaju xeex boobee nag moo waral ba ñoom ñaar ku ne daal di porté woon plainte rek waaye nag mel na ni jamono ji mën nañoo wax alhamdulilah ndax yàlla suyu na ci ndox bu sedd ndax ñoom ñaari parti ku ci nekk retiré nga plainte bi nga defoon waaye nag li ñëw ci soow mi moo di enquête bi jotoon nañ ko boucler ba daat koy jébal ki nga xamante ni moo di procureur de la république moom mi nga xamante ni ci fan yéenu jëm dina décider jërë ngeen jëf fii la ñuy yam ak yéen daanu leen ko toppal indilaat leen